rød, så drømmer, volleycall. sama waajur bu góor jàpp ko comme yaayam par laa si sama waajur bu góor dem ba génn àdduna léegi kër mère moomu nag dafa lakk meer boobu doomu bu góor laa jël fat ko sama biir kër moo ak soxnaam ak ay njabootam comme man sama waajur bu góor bu jigéen jëf wàññeeku ne léegi nag par la ñu dem ba mu yàgg yàlla def doomu mère boobu ku góor ko moom moo wàññeeku génn àdduna moom it léegi kon ñun ñoo fa des ak ci soxnaam si mu fa bàyyi ak ay njabootam man la nag ak sama mag góor léegi nag ko ko a kesänyónek ciköllégi jelenem, amit bolomkölöm vátígyi. Alelem újdornak bejálat, ankunko bolel, bolomkölbunko bolelat. Kokunak mónyó, innále domon budigén, tibirkölcs, mindenki tibirkölcs. Tudjél bomna hamatére körül mollakon, banyále domon gányit. De fa amal bolomköl, bolomköl gogum, mónyó, innále domon budigén. Innále domon budigén légi tila, tó ay Hij doet elke tijd, ay hij, hij doet 510 jaar. Ja, hij doet maar allemaal kredibietje en bedom. Maar aan mijn mond dom, leer je dat, ja, hij doet, uh, don die dem, ni euh, a hem die nu bekadjor, je balako. Maar dit nam dan dem voorvoer, hij gam mon affaire, hij leer met dem verhoor, ga hebben, niet een tegman, affaire, to ben la bu mu yàgg ci la laa de xaaral ma dem ma ma dem jéggulu ci jënd sama guro jënd sama kii tàngalat affaire yi jëndal sama doom nécessaire ay gaam ak jiréeg lépp yóbbu wama àggees jukku jéggulu ci para ma ko papa yi xale bi jigéen beeg yooyu yëpp ma ñu yoo leen paalu leen ah paa bi na ma taale ma affaire yi jënd ay yéreeg affaire yooyu moom dañ koy bañ caaree dañ koy bañ fii léegi nag yow personnellement sa dooma nga fi saa yow ko soxlaa da ñëw te bu ñu. Marine ma jàpp si waxi kilifa googu re Kom samma självmö amalan dom, kom diga ba amemom dom, khambayano domi, pulnu nyom sen forit nyowa in yukawa diga sen sen sen sen dom titu ma bai khalibu digen before a jaep, lete ol domi digen teg mom maget, ay foto video tu, jep male mom. Velle ima yala devna, ni dem botol fini, mala legi, samedi u domi nem tiki po yore, fa dioblo tu du mon, tra, men mom la khame un misachni mom moya khaye, bom ferek, jep boy mom mom wa telefon dema istike. Leila mandamadamon damokelekopel membole umwap deni degutti talei sirajai majai telefoni tutaninal dame wul sama yaay dame wul sama papa malit male pourquoi pas comme man maa ngi dund maa ngi def lépp war naa mën a récupérer sama doom mu xam sama kër xam ay doom baayam xam ay samay famille affaire yooyu mais ba ma jógee pour récupérer xale bi même mu def sama kër même bu dee Umma, munumasito, madaflona que yun samma tuwa, modem tuwa, ni ko no buko, bom jige fofo, après mu, damnira wala, yo buko kayo, man ci batiyayam, xale bu jigéen bi ma dem ci yaayam sama doom bi ma dem ci yaayam te expliquer ko yaay ji xamal ma ni carrément man mii di wax ak yow deux ans yi nii gisuma sama doom dégguma ko téléphone yaayam ci wàllu boppam mu taxaw dama carrément avier ni man deux ans yi nii man gisuma sama doom dégguma ko téléphone ma ne ko loolu fi mën a demee mu ne ma ah lii daal laa la mën a wax yow daal demal na naxtaanante ñëpp ah mardi la ma ko wax mercredi ma toog noppilep jeudi ma ànd ak sama mag dem ba ma àggee toog bi motokuwa familia e puto moxa talan yom. Ndijayem at fam bi e ko yoroon Tuuba yaayam ñoo ne ma carrément xale bi du fi jóge ma ne ah ñu ne ma carrément xale bi du fi jóge ah léegi nag sama mémoire ma ne ma dawal di sama mémoire kon li lay def yaayam kon foofu la di mujjee man comme yaayam maa ngi soog a comprendre dañ ko kidnappé ci sama doog ci doomu ah ma ne ma ne sama mat bi kaay ñu ñibbi ma jóge ma dem Thiès tribunal Thiès laa dem ci lundi bi madem tribunal Thiès ma def sama convocation pur mu dem ci yoon ñu wax sama doom du fa jógee fa lañ ko teg waaw ma ma demee mi dama Louga la ñu bindal ma convocation ne ma Louga la madame Louga ñu ma carrément Kébémer la madame Kébémer ñu ne ma léegi président bi signé affaire yooyu nekk fi demal ba lundi prochain demal après dina yow wala ma wax ma dem ñibbi ba lundi oo duga wata ma mama delluwaate mu ñëw ñi bindal ma convocation ne ma suba suba suba plainte ne ma suba suba yéen ñëw wis ma yóbbu ko plainte bi suba ma delluwaat dem mama àggee yoo xamal ma ne carrément xale bi kon day jàng bàyyi ko fa waaw bàyyi ko fa mu jàng ma la ah loolu mënul nekk man sama loom day jàng te man maa ngi kayiti juddu nijaay na ma carrément nag man de ma maa la laa kayiti juddu nga bañ ma defaral xale bi kayiti juddu ma ne ah man yii lu mu mën a nekkee man nijaayam di wax dépp wax 대풀박하야 은비벨직 말하면 몸씩 굳디누아 왈라울 아진 보브 사흘라이트 게디기스 바케로 보면 페트가 스마카 레게나 마담 와하고 아디와 아드네 마카르마 il faut qu'on baille kofa bomu bomu janga ba pare ah mane laaj il faut mo wotin dimbal il faut ma sa kun dimbal salaamaaleykum salaamaaleykum dal leen a jàmm te dañoo ñëw pour ñu aborder benn sujet bu xaw a sensible sur confession intime dafa am benn waajoo xamante ne dafa am benn xale bu jigéen bu mu doon nekkal xale bu jigéen bi nag doomu boo frère am la mais malheureusement dafa mujjee ëmbal xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi am si doom bu jigéen waaye moom nangu naa reconnaître xale bi waaye takkul soxna si soxna si nag daal di dellu village moom mu des Dakar mais teewul ne doon seeti xale bu jigéen bi pour xool doomam si lu mu nekk mu koy def des années et des années li tax mu bàyyi doom ji si xale bu jigéen bi doom jigéen mu nekk yaayam mu gën mu dem mu bàyyi ko si mais teewul ne daan na dem di ko seeti xool si lu mu nekk mais dafa dem ba jibi jabono mu bëgg a jël doomam jigéen yóbbu ko si këram comme ça mu mën a xamante parti famille am xale bu jigéen bi mën a xamante ay doom baayam mais à sa grande surprise ba mu yóndee foofu magam bu góor dafa dem foofu noonu ñu koy nëbb xale bi si la découvrir que ne yaayu xale bi yoru xale bi dafa am keneen ku ko jox kooku noonu nag moo ko bañ a jox utal na ko extrait jox ko ay lépp mu jàng si kéet yooyu noonu xale bi moom papa ji utaloon na ko ay kéet ba ba jamono ji xale bi ñaari extrait de naissance la am waa ji mënul jot ci doom ji instant yi nag jàll na bëgg na ko ko dimbali pour mu gis doom bu jigéen mu mun koo teg ci wetam situation bi ngi nii nag ñoo leen di laaj xalaat à travers les commentaires lan moo war a mën a doon réaction wu waa ji est-ce que war na mën a saisir justice pour ñu àtte ko mu récupérer garde doomam wala dafa war a mën a négocier famille bi pour que ñu jéem a xool lu ñuy gérer affaire bi à l'amiable question yooyu noonu yëpp dañuy bàyyi ngeen jox ñu seen xalaat à travers les commentaires sur ce ñu waxante ba beneen sur confession intime